dañuy dem seeti Farba Ngom ah Papa Samba Thiam Farba Ngom de nee na benn baax na waaye ñaar la gën a wóor ñu ne ko lu tax mu ne dafa ci am expérience président Macky Sall ñaar la soxla moom nee na pour wane preuve boobu bay président Macky Sall di tàmbali politique fekk na ko mu yor ñaar te nee na benn ñaar a ko gën a wóor kon ñu seeti li nga xam ne mooy far Ngom ak soxnaam ndax ñooñu seen yoon mu ngi ci yoonu Farba Ngom déet mbiye ngom so haalle jaɓon farba ngom ari jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf e jaaraama jërëjëf jërëjëf jërëjëf e daal ñaar la xam ngeen ñaar yàlla moo njëkk wax ne doomu aadama loo gis rek yàlla def na ci ñaar loo gis yàlla def na ko ñaar ñaari bët ñaari pàkk bakkan gémmin benn la waaye kaddu booy génn muy ñaar nopp bi nopp ndeyjoor loxo càmmooñ loxo bi tànk bi tànk bi kon du ñaar yéen fii yéen fii jee fii cuukel fii kon loo gis ñaar la ci kanam ak ci ginnaaw comme lépp ñaar ku bañ ñaar rek da nga bañ yàlla ndax yàlla ci boppam moo njëkk waag ne yéen doomu aadama yi leen ma may leen soo ñaanee yàlla may la benn doo wax alhamdulilah yàlla dolli la bii bii moo tudd jaari bii mooy Adja Mbaye doomu maasu mbay bi ma amee bi wërsëgam moom ñëw ci man mu nekk ak man billaay lu ma lijjanti yàlla def ko mu yom bi ma nekk bi benn kër laa amoon ma nekk ak am ñaari kër ma nekk ak am ñetti kër boobu Macky ñëwagul de ma wax comme que yow maa ngi nekk ak yow am benn am ñaar am ñett ndax suma ma utaatee beneen du ma am ñeent juróom juróom benn bii bii bii wax na ne loolu bëgg rek loolu laay def ma am bii bi bii ñëwee ma am ñett am ñeent am juróom am juróom benn loolu yëpp nak sama liggéey moo ma ko may bii may wax nii boobu maki ñëwagul de bii may wax nii boobu Macky ñëwagul de bi ma amee bii boobu Macky toogagul de kon ngeen xam ne boo amee benn mu jig nga dolli ñaar mu baax kon alhamdulilahi rabbil alamin net ma ñëw ma ñëw ma ñëw baax ma ñëw jërëjëf jaari bii dafay wax ci alpulaar ndax li ma wax nii waa Fuuta xam nañu ko konon bandiraɓe sehlaɓe ni konon fouta salmini onon haalpularen mbiɗen da jaam moɗon komin ɓinguel moon haaldata e moɗon ko min woni jeewo farba gom min mbitemi koy ko jaari ndew resi kam nak euh, joni ndew resi kam mbi worsege o ɗum ɗo arsugo o ardi wiya machallah joni o mbimi o ƴeew lembel o watte hen beele ma affaire o worsege o ɓeydo udditade faami joni no addi oɗo debbo machallah ko debbo moƴƴo nak tew mo nangi diggal sow guiloare galle he kam sukaɓe ñamata kara maɓe gacca machallah wallahi wallahi hay pulaar ni mi jangganimo joni machallah ko min sehilaɓe min beldosi ala ah, kiina moy doomo masou mbay aja mbay kiini bala moy bog moom billahi ay patron yu mag bog nañ moom waaye moom dafa wax ne man la bii bi mu waxee dama nga seet ma seet bii benn yoon ma seet ñaari yoon ñu wax yaa ko teer neex waxal Adja Mbaye asalaamaaleykum dëgg neexul nag sama wujju bi nga xamante ni mooy jaara nee naa la dafa baax a baax baax ba man dama lay remercier saa su nekk rek parce que kii nga xamante ne mooy sama alaaji man tamit moom bi mu ñëwee ni ma carrément dafa bëgg ñaar c'est dëgg dëgg te moom xam na ni carrément ñaar delloo kam ne après dina ko wax moom tamit dinaa ko delloo kam ne après dina ko wax ka ma ne nee naa ko bi ma amee bii ma am bii kon benn mandat wóorut de ñaar moo gën a wóor benn jabar baax na de waaye boo amee ñaar wërsëg la bii bi ma ko amee def ma wan ne moom mun na la indi leneen lu ëpp lii wërsëgam bii moo jaar ci man moo indi bii bi ñëwee wax dëgg yàlla wax nañu alhamdulilah. bii mooy premier mandat Macky mooy deuxième mandat bii. kon benn baax na. waaye ñaar moo dàq. ku mën benn bàyyi koog benn na. waaye ku mën benn bëgg ñaar jokk ñaar. ma ñëw. benn sa dëgg sa dëgg-dëgg du bett kenn ndax sa papa mooy sa dëgg-dëgg. bu góor am benn mouvement bu yow Adja boo waxee ne sa dëgg-dëgg am na lu yaram daw kon sa dëgg-dëgg yaram daw kon ñaar moo gën a wóor benn. Macky dinaa la jóg ñaar ñaar gën a wóor waay. waay Macky dinaa la jox ñaar ñaar gën a wóor waay Macky dinaa la jox ñaar ñaar gën a wóor waay Macky dinaa la jox ñaar ñaar gën a wóor waay jaari aja may waay ñaar gën a wóor waay jaari aja may ni waa mu ngi nii ñaar foo gën wóor jaari aja ngi nii ñaar gën a wóor waay jaari aja ngi nii ñaar gën a wóor jaari aja ngi nii ñaar gën a Diomaye boot